mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah lu xew wala lu ko fi jar mbokk ñaata fan a ngi nii réew mi yëngu yëngu-yëngu boo xam ne jéggi na dayo mbokk yi yëngu-yëngu bi lu mu jur fukki gone ak benn nee na ñu faatu nañu ci ay téeméeri téeméeri milliards defub doom nit dem leb ci banque bi jënd otoom ñu taal ngir lan xëccoo nguur loolu mooy dëgg réew mi nag xaaj nañ ko ñetti pàcc ñii commencé nañoo yuuxu defe ne ku jëgi jot na ci nguur gi ñu ne nañ wax ndax bu ko jëgi jotee ci nguur gi di ñu fàttaliku nga xam ne lenn lu ñuy def te yàlla tax amul ñenn ñi ci des ñu ngi ngooy ci li ñu yor ci nguur gi naan nañ ne patt rek balaa ñu koo yàq wala balaa ñoo taal sunu kër wala balaa nguur gi di ñu mere ñenn ñi nag ñoom xam nañ dëgg gi bëgg nañ koo wax waaye ñemewuñ ko ndax ku wax dëgg ñu saaga la nit ñi li ñu bëgg a dégg ngay wax mbaa nga noppi nit ñi li ñu bëgg nga wax ko donte du dëgg loolu ngay wax waaye nga nopp boo waxee li nga jàpp ne mooy dëgg te wuteeg ñoom xalaat ñu saaga la sosal la mbokk yi ci man réew lañ nekk mbokk yi nañ seetaat suñu bopp mënuñu lenn lu ci ñëw jàll kenn du ci jàngee dara waaye xam ngeen ne xëccoo nguur ba fukki bakkan ak benn faatu ci responsabilité bi mu ngi tàmbalee ci ñi nga xam ne dañoo yor nguur gi jàpp ne dañ cee war a ngoy téye ko ci nu neexee ba jokkalante ko ci nu mu leen neexe waaye dañoo fàtte ne sengoor neewoon na nguur kenn du ko ñëdd dañoo fàtte ne ci ay yoxo la jógee tàbbi ci seeni loxo faw dina jóge ci seeni loxo tàbbi ci yeneeni loxo loolu mooy dëgg waaye ñi nekk ci kujje politique nga xam ne ñi ci ëpp nekkoon nañ ci nguur ay yoon ba jóge ci delluwaat ci kujje gi ñenn ñi musuñoo nekk ci nguur waaye moom la ñuy xëccoo tey dañoo fàtte kàddu ya Abdoulaye Wade waxoon Abdoulaye Wade newoon na dem pale jaraluma jaar ci ay néew ndax tere na ko jot ci nguur gi ñaata yoon la Abdoulaye ko keroog ba sunu borom nammee bu dem pale dem na pale mbokk yi ci anam mu mucc ay ci anam mu rafet lu tax ñu bëgg a fàtte loolu fàtte ko moo jur lii ci ñaari boor yépp nag kon ñoom ñooy les principaux responsable mbokk yi lu ko fi jar ba fukki nit ak benn faatu ci mbokk yi nañu dell ca cosaanal mbir mi fa mu dépare lan moo ko fi jar mbokk yi waaw dëkk bi nga xam ne dañuy ñi fi ëpp ay jullit lañu nga fekk jullit bu liggéey ay at nga taal ay bagaasam nga fekk jullit bu gaare otoom nga sotti essence ko ndax lan dafa am koo xam ne da nga koy jàppale te li muy ut jaral na ko lu ne ba ci ay bakkan di ci faatu waaw yéen a ngi fàttaliku njaaj keroog sëriñ daara bee di xaadim géy ba ñu yeewee ay loxoom yóbbu ko ci yoon ne dafa jëng gone yoo xam ne dafa leen doon jàngalaat alxuraan ndax jaraloon na leen jóg barki démb fii ci njaareem bi ñuy àtte daara bi ci dafa jëng ak gone ndax jaraloon na leen jog moo ne fa seen njëriñ ëppee ci ñi taxawu seeni gone ngir ñu xam yàlla ragal ko ci ñi taxawu seeni gone ngir diina nekk ci ñoom lu tax tey diina jaralul jóg Sénégal yi tey kenn ku ci nekk taxaw di fëgg dënn defe ne da am ndam amoo ndam gàcce rek a ci am mbokk yi ndax xëccoo àddina xëccoo ba fukki gone ak benn faatu ci ba ay milliards doonub dóom ku ci bëgg ku ne seetal sa si sa borom na sa xel dem ci ñii nga xam ne ay ndey lañ yi nga xam ne ay gone lañ seen yoon newul ci mbir mi faatu nañu yow de bu say gone di la gàttu dëkkandoo nga am mbégte ñoom seeni gone def nañ leen ci kees denc nañ leen yaay yee ci gën a sonn mbooleem fukki yi nga xam ne ñoom lañ faat ay doomi baadoola lañ seen yoon newul ci mbir mi mbokk yi nekk ci kaso ba ña ca ëpp seen yoon newul ci mbir mi seeni ndeyee jaabante di leen yóbbul ñuy lekk ak ña ne ca hôpital ba ña ca ëpp seeni ndeyee jaabante di leen yóbbu ñuy lekk di leen yóbbu ñuy naan te yoruñ sax luñ leen fajee mbokk yi ana ñi doon xëccoo kenn ci ñoom du seen doom du seen jarbaat du seen mbokk mu ci loru mbaa mu ci faatu defe ngeen ne lii dëgg la jullit yi wala jóg takku doon benn say te xaajaloo gi di xàccandoo di dóorandoo di tànnandoo sunuy njaboot dootul faatootu ci àll bi sunuy alal dootul yàqu ci àll bi lenn lu jar ay bakkan di faatu fii amul tey fukki ndaw ak benn faatu fi képp ku ci bëgg ku ne seetaatal sa bopp lu ko fi jar mbokk yi ak lii ba kañ ubbi leen seeni gët nañu toog jàpp sunuy njàmbur ci sunuy kër te xam nu ñuy fale ak nu ñuy folle way kenn bum ñu dugal ci xeex boo xam ne ñun dong ñoo ciy loru bu ëllëg nag bu ñuy déggoo seenug déggoo di ànd seen ak ànd yéen ngeen taxaw fële di jooy seenu jooy ak day gëm boppam nit du gëm boppam day xam boppam nañu xam sunu bopp xam luy sunu njëriñ jiital ci nag lii njëriñu réew mi te ñii di yëngu ci wàllu politique ñu ber leen ne la seetaan leen ba xam ndax mën nañoo dem sans ñun carte yi ñoo ko yor lii bu ñu ko nangooti na dakk plus jamais